ginnaaw bi ñu jëmmalee li ñu daan duppee code QR Pader 2 nekk benn projet boo xam ne fi mu nekk nii soobu na ci xarala yu bees yi ba lépp li nga xam ne tey jii nguur gi ci wàll jëriñ bi ñu denk lépp lu jëm ci wàllum mbay mi ñu ngi koy wax ci nan la ñuy def ba xarala yu bees yi ñu daal di koy jëmmal ci wàllum mbay mi daanaka Pader 2 def na ko ba noppi jaarale ka nag ci benn kuréel boo xam ni moom la ñuy wax AZ Consulting. logiciel bu ñu tuddee GOP maanaam gestion des organisations de producteurs. logiciel bi nag Pader moo ko jënd pour jox ko producteurs yi. paye engrais bi nga xam ni ak euh, semence yi nga xam ni moom la ñuy joxe tracé ko ba mu leer ñu ni àgg na fu mu war a àgg. soqeekoo ci ñeenti diwaan yi nga xam ni Pader dafay yëngatu muy Matam Kolda ko ak Tamba organisation de producteurs yi coopérative yi ñoom ñëpp jot nañu jàng ci diiru juróomi fan nan la ñuy jëfandikoo uti bu bees boobu logiciel bi ñu naan GOP. ngay xëy ubbi sa téléphone. wala nga ubbi sa ordinateur wala nga dugg si sa compte Google nga gis lu sa morom def nga mën a fexe def lu nu toll wala nga def lu ko raw. pas-pas bu ñu am mooy su Pader demee ba jeex ñun ñu nekk sin ay ONG yi bopp ñun tam ñu mën a créer yeneen i outils ñu mën a lëkkaloo aussi ak outil bi nga xam ne jox ñu ko ak ñi nga xam ne ñoo ñu koy liggéeyal ñu mën ko transformer si yeneen gox yóbbu ñu sax ñun tam ñu jàngale ko suñu morom ndax ñu ñu a pour jox ko ñeneen. ci jeexital kàddu ki nga xam ni mooy coordonnateur national bu PADER 2 di Sada Baboy xamle na ni. li nga xam ne moom mooy nawetu ren bi nekk na li nga xam ne daal dina tax ñu gën a mën a natt li nga xam ne indi nañ ko ci wàllu xarala yu bees yi muy logiciel gopp boobu mbirum alal muy mbirum intrant muy mbirum matériel agricole lépp en tout cas li ko PADER di jox tey war nañ ko mën a fekk si logiciel yi si nga bës rek pour ne Massamba est jot na boo ko bësee tey mën nga ko poser ay questions mais en bi xam lu mu donc aussi beneen euh, beneen beneen beneen bi ñu am bi yokk si logiciel bi moom mooy mbirum climat bi mooy mbirum taw yi mbirum yooyu yëpp dina tax même ak sunu assurance suñu def ak CANAS tey ñu mun a topp loolu tey mun nañu xam ni kii dugal na jiw wala dugalul jiw yooyu en tout cas vraiment ñu ngi à l'air donc ça dire que tey li gaa ñi di woote c'est-à-dire sama kilifa yi li ñuy woote loolu déjà am na ñun commencé nañ ko tax ñi nga xam ne ñoom ñoo saytu nguur gi ak mboolee techniciens yi ñu xam ni am na yoon boo xam ne bu ñu ci jaaree ëllëgu li nga xam ne moom la ñuy sént ci wàll liy koomal mbay mi nekk li nga xam ne dafa yemb ba noppi